fa jaar euh, lu ma sabab lu la ak lii may def nii mu bokk benn sabab rek mais dafa gën a yaatu tey ndax li fi jot a jaar tukki lañu ñu jógee rek doon taalibe bi Serigne Babacar Sy dogu ci moom mu dimbali ñëpp ñu dimbali wax bi ñu demee dikk mu jox ñu li mu ñu joxit ñu jël ko rek def ko ci jigéen ñi jàppale leen te yàlla tax parce que jàpp nañ ni boo jàppalee jigéen jàppale kër moo tax bi ñu ñëwee li ñu Serigne bi dimbalee ñu jël ko def ko ci askan bi ñu commencé ko en 2015 yaakaar naa ni loolu mooy jotaay bi njëkk bi ñu duggee ci penc bi tey suñu borom def mbir mi di dox di dox ba ñu créé beneen projet boo xamante ni dafa gën a yomb ci ñun ci mode bénéficiaires yi gën a yomb ci ñun ci mode paiement bi parce que li ëpp solo ci ki ngay liggéeyloo li nga koy jox nga may ko. temps wu mën a liggéey mën a fay ba pare simplifier ko mode de paiement bi ba nga xam bu koy fay du ko yëg parce que am solo biñ ci waxtaanee ba créer projet bi ñuy wax projet idée développement personnel suivi du financement collectif euh, jóg ci di ci dox ñu waroon ci nekk financé ko avant élection locales yi jàll ak législative suñu borom def ñu nekkoon ci yooyu ba am ay gal gal yu ci nekk moo tax bi ñu jógee ci yooyu war a entamer suñu yenn projet ñu ni balaa ñu def la nañu finaliser le projet la biñ ciy waxtaan di ko tënk mag sama xarit muy le président Idriss woo ma ci ñu waxtaan ci échanger ci yàlla def mu tukki ci diggante bi ñu ni mënuñoo xaar nañ def lu ñu war a def xaar ko ba mu ñëw dab ñu ci yoon bi Adja Sophie Diallo mu nekk 3FPT ñu wax ci ak moom muy sama xarit eh, boole maag na traise bi nekk FONGIP ñu échangé ci yàlla def ni biñ ci échangé wala maag ku ñuy wax Georges moom moom ma expliquer ne ma il faut ngeen dem crédit mutuel parce que démb nañ démb bay ubbi compte bi eh, BND banque de l' état la parce que banque de l' développement la état ko moom yàlla def na ni ñu surtout ñoom crédit mutuel la lañu am ak convention te seen xaalis bi la ko def ñun on n'attend que deux de nous euh, euh, suñu caution bi ñu joxe mooy l'apport pour mën a ñu mën a jox paat yàlla def na ñu dem ci lañ dem ubbi compte bi moo nekk ni crédit mutuel IDGK bi ngay seen suivi du financement collectif membre yi nga xam ne ñoo ko ŋànk tey xam ne trois mandataires yi ñu war a signé ci compte bi ñoo nekk nii de sama xaalis laa fa def waaye tey aw ma accès ci xaalis boobu ça pourtant ma ànd fa ak umu xeer mi nga xam ne mooy trésorier bi doon wax ni ak seegam na nga xam mooy secrétaire général ah bi ñu defee ubbi compte bi euh, ñu dugal si le montant de un million ci lañ ñu woo jox ñu de virement bi nga xam ne moom laa yóbbu BHS pour def le reliquat pour ñu envoyé ko foofu tey yàlla def na ni euh, suñu borom def na ni loolu yëpp tënk nañ ko ba xamante ni. bu sot def ci l'essentiel rek moo des jigéen ñi jot li war a jot. financement bi ñaata nga war a yaa ngi wax léegi benn nit sax mën na dem ba am ëpp ñeent fukki junni. voilà waaw parce que ñeent fukki junni lu tax ñu wax ko boo xoolee dans les la demande qu'on naa demandé au niveau du FONGIP puis les microfinances dañ ñu ñoom dañu bàyyi le montant dañ nañu xool leen li nga xam ne moom la ku nekk bëgg mais ñu nit duñu ñu nangu mukk loo nit loo xam ne antanu ko danañ def de telle sorte que. li ñuy fexe bénéficiaire bi di ko am day méngoog li ñu ko fekk mu koy def pour mu yokk ko jëlee ko un yóbbu ko au moins cinq pour mu mën koo gën a yokk doole mais boo ko bëggee jëlee un yóbbu ko cent danaan am na sax renfort bi baax na xelam dal na te mu cinq alal ji moo tax ñu bëgg ko def jëlee ko de un yóbbu ko à cinq ba pare am suivi parce que souvent Babacar damay wax Sénégal ñun am nañu chance de formation am na ñu chance su financé. mais li ëpp ci formation yi ak financement bi suivi mooy problème suivi bi moo tax ñun ci biir réseau bi ñu yor bi ñu defalee lii ba pare ba waxtaanee ko ci suivi bi lañ tënku de telle sorte que toute personne qui est bénéficiaire d'un montant de deux cent mille francs danañ fexe nga fay six cent cinq francs par jour mu nekk deux cent dix neuf mille cent francs en un an. kon su ma wala euh, euh, cere. moom mën na si bokk si. exemple bi maa ngi ko jël ci femme bu ma dëkkal bu jaay naana yow yaa ngi dem jaaykatu gerte caaf bi parce que gerte caaf bi minimum li muy jaay ci gerte di ko pe jaay mën na mat ba dix mille mais kii jaay naana paan bi minimum mënu mat cinq mille mën na def quatre mille francs ci naana mais tey kooku di jaay naana ak ci paan quatre mille nga cinquante mille jox ko wala deux cent mille ne ko yokkal sa naana fexe mu créé benn micro jardinage ci biir këram di jàmmat foofu naanaa bi di ko fa génne di ko yóbbu yaakaar naa ni kooku yokk nga ko jom parce que may nga ko mu am possibilité am outil de travail ba pare am matériel bi yoo xamante ni revenu boo xam da koy mën a jël ci outil de travail pour mën a jënti je pense que ne exemple boobu ci femme boobu laa ko jëlee jàpp naa ne tey su ma wutee deux cent mille jox ko dina a créer benn jardin biir këram parce que am na espace dina fa mën a bay naanaa bi dina ko fa mën a jëlee dina ko mën a jënd dem jaay au lieu dem di ko wuti ci je pense que ni loolu am solo la ñuy jox cent mille francs c'est la même chose cent mille francs boobu dañ ko koy fayloo en un an dont trois cent francs par par jour parce que lu mu jaay verser trois cent francs je pense que day gën a yomb moo tax bi mañ ma waxee man leen nañ jël projet bi ko un projet de développement personnel c' est pas grandiose ah parce que ku ko gis jàpp di nga foog ni c' est euh, dafa nekk lu rëy mais c' un projet qui est terre à un projet que dëy xool nit ñi li ñu nekkee lan la ñuy def nga xam lan la nga fekk seen ci loolu jàppale leen ci. 350 mbootaay ku leen jàppale surtout ku nekk am na ñu nekk seen ginnaaw loolu aussi am na solo mais surtout benn innovation suñu mbokku artisans yi mécaniciens yi menuisiers yi ñoom aussi loolu dafa taaral projet. waaw yi ak menuisiers yi euh, Adja Sophie Diallo bu 3FPT dafa ma fëgg dama ko fëgg maa fëgg buntu këram ne ko kees dañoo am problème parce que suñu menuisiers ak suñu mécaniciens dañoo am maanaam nouveau technologie bi dañ ci bokkul. comment faire pour ñu bokk ci mu ni ma Habib dinaa la yónnee ay oto nga jox leen ko ñu ñëw Dakar bi ñuy dem mu jox leen ay oto ma jox leen ay moyens de déplacement ñu jël seeni i oto menuisier yi dem def ñaari fan mécanicien yi xëy def ñaari fan tey yàlla def na ne ñoom am na satisfaction moo woowaat leen ci leneen parce que dama jàpp ni mécanicien yi ak ak menuisier yi secteur bi ñu nekk di liggéey arrangé wu ñu ñun arrangé wu leen leen mais qu'est-ce qui vous ngeen tendre la main à l'État du Sénégal par rapport au déclassement de Mbour 4 demandez à l'État Sénégal pour que yéen ñu daggal leen une partie boo xamante ni comme au Nigéria ni ma ko gisee Nigéria parce que man loolu laa yor dama naan Sénégal euh, euh, am nañu li ñu bëgg mais li des mooy la façon de faire et l'accompagnement la façon de faire c'est l'idée l'accompagnement c'est la foi xol bi moom la ñu manqué xolu jàppalante pour dimbali nit ñi ñu dem man jàpp naa ne sama xol li ci nekk ak sama xam-xam ci nekk bu ko nit ñi jëlee njariñ ndax ki ma yaakaar defal na ma ko muy Serigne Babacar Sy moom ci laay wooy askan bi ci laa jàppanteeg menuisier yi ci laa jàppanteeg mécanicien yi pour les tendre la main pour que ñu ñëw ànd ak ñun sans projet parce que c'est un projet boo xamante ni tey boo xoolee li xew fii nit ñi ñëw fii c'est des membres du radar souvent yaa ngi ñëw na man Habib lu tax doo ko mouvement politique mais su ma naan su ma wutee mouvement politique peut-être mën naa yàq lu bëri mais je préfère avoir le réseau radar bi nga xamante ni dañuy nekk des membres ma ànd ñoom di liggéey le moment bu su fekkee ni jàpp nañ ne man maa gën ci ñoom ñoom ñooy convertir seen bopp en militant et je pense que ni dem naa ci ñaari élection yoo xamante ni ñoom ñoo convertir seen bopp mais convertir duma leen yàlla dimbali moo ànd ak ñoom dinaa yàlla samay waajur ma ñu accompagné ma ñoom ñëpp jigéen ñi toog fi ñëpp accompagné ma ma am ci ndam loo xamante ni ne da ngay jëm mais sa waay ji nga bi la ma ko banque bu ko Idrissa Seck waaw la wala non le président Idrissa Seck xam nga li mu wax séminaire bi passé man je me je me limite sur ça njit doo ànd ak moom ba pare di ko waxal lu la wax loolu télé yi ni ma fi taxawee di wax noonu la taxawee télé yi di wax yéen ay journalistes yéen yéen a ko jël mu ni il est dans une coalition ak le président Macky Sall coalition boobu mu ànd le président Macky Sall moom mooy définir qui sera le candidat de la coalition kon moom loolu du ci prononcé wu du dul xaar le moment venu mu doog cee wax ñun nag en tant que allié envers le président Idrissa sec li ñu def mooy respecter l'engagement on a à travers sa personne et di ñaan aussi li euh, euh, ku sañoon ku nekk sa doomu dëkk mooy doon président Sénégal mais dañuy ñaan au sein du coalition bi nga xam ne tey le président Macky Sall moo ko jàll ko jiite mu investir le président Idrissa pour qu'il puisse être le président de tous les Sénégalais kooku suñu choix la en tant que Thiessois suñu choix en tant que notre grand frère Idrissa Seck. bi day gën a yaatu. waaw non mooy li ma wax sànq tout à l'heure je l'ai dit sànq à Mounirou ak on a dépassé les deux phases le couplet on a on réussir le couplet tey yaakaar naa ni couple boobu bu doon ay milliards am gagné nañ ko gagné nañu local gagné nañu législatif muy couple bu am solo ah, bi ñu paree ci loolu yàlla def na ni ñu ngi dem ci tiercé bi muy les présidentielles incha allahu karim bu neexee yàlla yonent bi na woon foo woon Serigne Babacar Sy daf ñuy joxaat ndab li léegi nag ndam yëpp ñu doon wut dafa am kuñ koy wutal quarté bi nag mooy ñeenti points yi muy quatre points cardinaux yi nga xamante ni Tivaouane lay daanu jee muy 2027 les élections locales incha allahu karim ñu tàllal loxol Serigne Babacar Sy mu jiital ñu ak askanu Thiès ñu fal ñu nekk le maire de la ville de Thiès. donc c' est Oumou Kalsoum Ndiaye du euh, réseau d' appui pour le développement de Thiès dont le président est monsieur Habib Kane. Voilà, euh, a toujours connu dans l'accompagnement, mais surtout l'organisation des, des Oui, la particularité de, ce, de cette journée, c'est d'abord le lancement euh, du ligne de financement dont vous venez de parler, qui a été initié depuis des mois. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, on est à la phase de réalisation. Donc aujourd'hui, c'était le lancement. Un projet qui a été financé par le 3FPT et FONGIP, dont notre président Abib Khan à donner la moitié, à savoir la caution, pour qu'il y ait des blocages. Pour dire tout simplement, c'est un fonds pour accompagner les femmes dans le développement de leurs activités. Ce n'est pas une chose nouvelle ici dans notre réseau. Ça fait des années, il y avait une première financement, euh, financement plutôt, qui a été initié euh, gratuitement par le président à hauteur de 100 000 francs par groupement. Mais cette fois-ci, vu l'importance de la demande et du besoin, Donc, euh, on est à hauteur de 500 000, 300 000 par groupement. Et plus même, on espère avoir plus. Donc, aujourd'hui, c'est la journée de lancement de, de, cette ligne de financement. On peut dire qu'on est toujours de la femme. C'est oui. Mais qu'est-ce que vous attendez en retour justement bénéficiaires Oui, journée de la femme, mars, mois de la femme. Donc, euh, c'est... Et dès l'instant qu'on parle de développement, qu'on parle de de l'autonomisation de la femme, je crois que cette ligne de financement permettra aux femmes d'être plus ou moins autonomes. par rapport aux activités qu'elles auront à réaliser. Tantôt, le président en a parlé. La femme qui, qui vend, par exemple, ses produits, des produits locaux, que ce soit du mil, que ce soit de, de la bouillie. Donc, venir accompagner cette femme permettra à cette femme-là de plus en plus d'être autonome. de ne pas attendre, par exemple, que le soutien vienne d'une un, tierce personne, mais plutôt d'elle-même. Donc si elle a vraiment cette possibilité d'aller frapper à la porte de la banque, d'être plus ou moins autonome, de travailler, de rembourser et également d'avoir des prêts, là ça à la femme d'être libre, d'être autonome, de ne plus tendre la main. Donc là, moi je pense que quelque part, avec ce projet-là, on veut euh, quelque part départir la femme de la notion de vulnérabilité et de misérabilité. Parce que souvent, quand on parle de pauvreté, quand on parle de misérable, c'est la femme est associée avec. Mais vraiment, si on permet à la femme d'être autonome, Donc ça va quelque part, je ne dirais pas éradiquer totalement la pauvreté, mais réduire la pauvreté parce que la femme, l'enfant sont les premiers à sentir les signes de pauvreté. D'autres aspects des artisans Oui, donc les artisans, comme on vient de le dire, eux, ils ont déjà bénéficié d'une formation, mais avec ces fonds-là, ça permettra de mettre à profit leur, formation qu'ils ont, qu'ils ont Et comme on dit, Euh, toute formation participe à, à valoriser un métier. La formation participe à valoriser le métier. Et si vous avez déjà une formation, on vous donne les fonds, ça vous permet également d'être autonome. Donc, comme ils ont dit, c'est des, des, secteurs qui très souvent sont banalisés, comme, comme le, le, le représentant l'ont dit tantôt. C'est en général quand on renvoie un enfant à l'école, il va être un menuisier, il va être un, des métiers utiles Donc la formation est forcément une nécessité, donc la qualification. Et maintenant, s'il y a qualification et il n'y a pas d'argent, donc ça veut dire qu'ils auront des difficultés à être rentables. Donc ces financements également vont permettre à ces corps de métier d'être beaucoup plus compétitifs dans le milieu du travail. Les taux de rendement sont acceptables Oui, c'est très acceptable. Donc c'est à taux au moins de 5%. Donc c'est vraiment acceptable. Le nombre Euh, actuellement, on prévoit financer plus de 200, je crois, ou bien on, on, on 350, dépasse 350, voilà, 350 groupements. Donc pour dire que et eh, je suis à peu, cela c'est l'estimation 350, mais vous voyez aujourd'hui même il y a des groupements qui viennent de se créer tout juste aujourd'hui et la porte n'est pas fermée. Le coût? Voilà. L'enveloppe, l'enveloppe ça dépendra. L'enveloppe ça. Artisan automobile dafa yaatu. te lépp a ngi ci biir mais mécaniciens yi rek ñoo ci am ba euh, léeg-léeg tur bi muy génn waaye li ñu xam ne Habib ah ñun de doo ñu gën a gore li nga xam ne daal ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw waaw fepp foo xam ne daal jëmee nga ñu fa parce que tamit lii nga ñu defar ñun soxlawuñu ko ñuy joxi ceeb ak i diwli ñun ñu ngi liggéey di gañee suñu live di am lu ñu wërsëg ñu yóbbu suñu kër ñun li ñu soxla mooy formation yoo xam ne ku ne xam ne niveau technologique yi oto yi ñu mel nga xam ne tey jii euh, xaaruñu te ku ne xam ne nu mu mel léegi ñu am ay barab yoo xam ne tey ñun ñoo ko moom suñu bopp ba dëkk bi fopp fu ñu defar ba mu baax rek kenn dootuñu fa jëlee naan fii nga nekk demal fële demal fële ñun loolu rek la ñu soxla defuñu politique politicien mais ni nga xam ne daal fu mu ñu woo daal te euh, euh, jëmiñu fa dinañ fa dem ñu ngi koy sant bu baax di ko nuyu ci euh, turu président national yi vraiment mi ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax parce que ku xam Revaas képp kuy màggali wala ngay gàmm gis ngeen ñu waxuma la national mais international la ñu ngi Mali ñu ngi Guinée ñu ngi fépp te loolu lépp tamit ñu ngi koy sante le président Abdoulaye Wade tamit ndax dëgg yàlla bi ñuy formé 2009 euh, bi ñu ko ba mu may recevoir ñu pale moo ñu may ñeenti 4 x yoo xam ne moo tax tey ñu mën a dugg ci réew mépp kon it dañ koy sant bu baax mais abi ñu ngi lay sant bu baax mbooloo mi daal mii ngi nii reewaas euh, yëpp ñu ngi nii ñu ngi lay sant di la gërëm jaajëf xëy na mu nekk 30 wala 50 personnes mais faale bu ñu jëlee seen xaalis rek dañuy dem kaalawu ni wax du ma sedd keneen léegi pour Habib sécuriser projet bi présidente bu nekk dina la jox benn fiche buy jël cinquante personnes de dix léegi soo amee benn groupement su groupement bu dix nga bind boo amee ñaar mu nekk vingt nga bind soo amee ñett mu nekk trente nga bind soo amee quatre groupement de dix mu nekk quarante personnes nga bind waaye soo amee cinquante personnes de mu nekk cinq groupement fiche bi daal di fees léegi aussi ñuy fàttali ni groupement bu nekk normalement war nga am kayitu GIE waaye kayitu développement bu nga xamante ni maison communautaire maison de développement communautaire bu femme yi bi madame Ndoye jiite foofu lañ koy jëlee ku ko am da nga ko siy joindre si biir fiche bi si biir enveloppe waaye ku ko amul soo ko wutee moom moo gën parce que loolu aussi dina bokk ci li leen di sécuriser léegi ñu ne sous groupement de dix bu nekk dinañ am un million wala maximum deux millions donc projet bi loolu la lépp pare na yéen yéen a si des ce bu ñu paree tey ci cérémonie bi su changement amul à votre wala ay retard am à votre niveau au niveau des présidents à partir vingt cinq incha allah dinañ financé ñëpp pour que ñëpp jot. loolu donc li ëpp solo ci li ñuy wax moom mooy fiches yi yóbbu ko ak remplir ko ak photocopie seen ay borom mais bu dee li banque bi leen di financer Habib ubbi na ko su dee caution bi ngeen war a joxe également Habib joxe na ko ba pare léegi nag kenn dootu fi wax. financement bi si radar la tardé wala si Habib waaye kay bii paa ragal naa ni dañuy wax si présidente diw la tardé parce que fii li ñu waroon def yëpp def nañ ko pare nañ donc loolu laa bëggoon joxe comme information je crois que leer na bu leerul um xayri dina ma complété. maa ni Oumar Niang je suis le secrétaire général ak euh, ñeneen membre yi si gannaaw suma gars ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di remercier président Lamine Kane ko nuyu di ko jox wàccuwaay. di leen di leen wax ni ñun association des jeunes menuisiers de Thiès ñoo ngi ci gannaaw ndax ba mu yégee ni am nañ association ba léegi wax dëgg yàlla ndimbalam ak euh, conseil am jógewul ci ñun ñu koy gërëm bu baax le président am Habib parce que moom moo nu xippiloo suñu bët ni leen ni nu yi fii yéen a ko moom yéen artisans yi fii ngeen di jaar ba jël seen yëf bu leen nangu kenn di leen manipuler di leen yóbbu fenn te seen yëf ngeen moom ko mais nag soo moomee sa yëf te xamoo fi ngay jaar ba jël sa yëf du yomb mu woonu nag di ñu vraiment di ñu woon yoon wi jàppale ni si jàppale bu rëy rëy ngeen mayal ma ko loxo ñu koy wax nag ni moom ay artisan lan comme ni ko grand zal waxee dañuy nekk suñuy bërëb di dóor waar ñu am ay problème yu baree baree bari ci secteur bi secteur artisanat ni mu demee informel bi ni mu demee yëpp grand bi wooñu won ni nu nii ak nii la suñu dooree ci yoon bi vraiment di ngeen am li ngeen bëgg te nu gis ko nag parce que li fi Zal wax léegi nii ñu nit am nañ ci formation 3 SVT de passage ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ndax vraiment formation yi ñu defal ak li nu won maanaam président Habib wan ni xam ni nu ànd ak 3 t moo tax moo mën a xippiloo suñuy bët ñu gis ni li xew te gisuñu ko ñu vraiment ànd ak ñoom ñu defal ñu des visites yu magnifiques yoo xamante ne vraiment tax na suñu bët xippeeku fi mu tool nii ndax ñun artisan ku gis xam ni lu taaru rek rawatina ñun ñi nga xamante ne ay menuisier lañ kon soo nu yóbboo wan ne nu yi seen bët teg na fii na tegu fii ndax lu taaru yi ngeen di defar fii ngeen jëm ak ñoom dañ ko ci gërëm di leen sant waaw di leen wax ne nag président ñun association ñoom sa gannaaw ndax gis nañ fi nga ñu jëlee ak fi nga ñu te leer la nag ñun moom wax dëgg yàlla nekk ni ñoo xamante ni dañuy doxee aveuglement vraiment tax ñu sawar taxaw fii di la wax ni gërëm na la sant na la te ñoom sa gannaaw li nga ñu a tax ndax soo na ko won woon it duñ la topp ndax am nga fi ay moroom nee na jëloon na nu wonnu mais gisuñu yow nag bi nga ñu wonee dañoo gis ndax dangaa jiitu nu won ni nu nii la defal na ay démarches yoo xamante ne vraiment ñoo ngi la si gërëm di ci sant